alhamdulillah بالله القائل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والقائل wa innaka la ala xuluqin azim walqaaili aydan wa kullan naxussu alayka min anbaai rusuli ma nusabitu bihi fuaadak walhamdulillahi ala aqassi qawaisi niamihi walhamdulillahi mutlaqan hamdan yaliqu bi itlaaqi xadrati zaatihi walhamdulillahi ala rahmatihi almuhda المبعوث رحمة للعالمين نور الوجود وسيده والذي قد أتى ينعش القلوب جميعا وينشر الدين دين أهل الغرائب دين, دين هدي ودين حق وصدق وخير دين عند الإله الحكيم اللهم صل على سر العبودة ومرتبة السيادة asli kulli kulli shay'in wa nuurihi alabdi daai alabdi daai ilayhi bi iznihi munqizi lbashariyati bi risalatihi aluzma alhaadi ila sirati llahi almustaqimi xatmi alanbiyai allazi faaqa arsal anbiyai sayidina muhammadin allazi yastawi indahu aldahabu walmadar wallazi qaala cheikh ibrahima fi xaqihi tabibi qaribun hal siqaamiya tasmau yuqaabiluni yowmi almuxafa almushafau wa radiyallahu an madadi alawliyai wa saaqihim alwaadi xadamayhi ala raqabati alkumali min ladun adam ila alnafqi lissuuri alihi fi daairati alwilayati kulliha almuttasifu bi awsaafi kamalaatihi sallallahu alayhi wa sallam xatmil wilaayati wa sultaaniha wa baabiha wa miftaaxiha alhaadi ilayha bi iznihi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana Ahmad ibni Muhammadin Tijaani wa radiyallahu an saahibihi addaal alayhim fi mawaadiqi alxilaafati ardi shu'unihim wa afaqiha mustawtini izzihim wa anihim daaim alqaa'ili an nafsihi muarrifan lana iyaahu bi faydiya faydul barri wal bahri jumlatan wa inni nafsun lil amini wa sahbihi wa qad sirtu insaana al uyuuni wa aynihi wa qad sirtu imdaada al ajmi wal urbi wa urbihi wilayati aluzma taxaqaqtu innani ilaya wa minni ma yufaadu li shurbihi ana nafsu wal afaaqu mahma raaytaha taraaniya fa inni alkullu min indi rabbi bahjati alulamai xujjati alaarifina imaami almurabbina gawsi allaajiina albaabi alwaasii almaftuuxi li ahli saadati wal fawzi ila maarifati waahidi al ahadi mawlaana cheikh al islaami wa barakati al anaam alxaaji Ibrahima Niass. alqaa'ili fi xaqi rasuuli wa layti akuunu al yawma turbatan alayhi wa layti araakun lil amiin al mubashir wa layti yawman kuntu shurbata maa'ihi wa haamila ka'sin lil bashir al munawwir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli yaa xadrata sheikhi xuduri lana fi hada almaxdari waltaatifi bi nazratin taati lana bi zafarin xadrati saada wa sayidaat ahfaad wa asbaat algaws alcheikh ibrahim haadi wa cheikh ibrahim cheikh tijaani alxaaji mohammad zeynab wa cheikh mahmoud ahmad mahmoud Niass wal wafdi almurafiqi lahum ahali Santhigual Ngoné wa dawaahiha muqaddimi muqaddami alxadra duyuufi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uxayikum wa uhanni'ukum bi haadihi aljalsa alazima waljalsa almasaa'iya allati uqidat wa antahizu alfursata li uqaddima lil axi fi llahi الشيخ عبد برهام وبقلبه الطيب وعقله الصائب وأفكاره النيرة بإعطائه الأمر لتنظيم جلسة مسائية لزيارة الشيخ نور الدين باب نو جعله الله زيارة مقبول زيارة مقبولة بدايتها زيارة wa wasatuha ziyadatun wa nihayatuha siyadatun kama uqaddimu lahu ay li cheikh abdoulahi wilaan tashakuraati li ixtiraamihi lil gawsi wa li usratihi wa mahabbatihi alshamila lil baidi qabla alqaribi fa jazaahu llahu anna wa an alxadra alibrahimiya kulla xayrin wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaaji Saloum yow mi toogee toogaayu Cheikh Nourou Diin yaag dëkk beeg dëkk yi leen wër ak tund wi ak seeni gan dereti Maulana Cheikh Ibrahim Niass yi nga xam ne ñooy tontóor yi ci kaw garab gi te gisuma garab guy meññ te tontóorut muy Cheikh Ibrahim Haadi mi nga xam ne baayam moom ngeen di tuddee du problème te fekk moom ci boppam fu mu toog problème moo fa dul am moo tax problème buñ ko tudd mu ne du problème te daawu ko wax noppi te daawu ko waxit te du feeñ waaye daf ko daan wax nit ñi gis ko dama jóge Kaolack wàcc garage di dem ci kër gi sama soxna nekkoon ci Kaffrine ma dugg ci benn watiir borom watiir bi ne ma dag may niroog waa Kër Baay ma ne ko ci laa mu ne ma man de bokkuma ci woon waaye box boxlu naa ba ne pëntax ci biir ma ne ko luy illa ji mu ne ma sëñ bi daal suñ koñ ca gannaaw raay lakk gu méttee fa amoon tegale rek buñ fayee ba joppoog ne noppalu nañ rek beneen tàkk mu ne gàmmu Kaffrine gi ñëw nit ñuy jàmbat ko sëñ aadi bi mu jógee mu ne du problème dootu tàkk mu ne ma ma ne hee eh, billaahi ñoo ñeme yàlla bu leen taalibe yi wëree lu nekk ne nañ koo wax mu ne ma bépp si tey bii déggaatuma fu tàkk ca fa ma dëkk ca gannaaw raay ma xam ne ki wax lii te ñeme ko wax ci mbooloo mii lu mu wax wér na kon nag danaa ko jege ndax muy wax lu wér may jariñu kon nag nurahibu bi ibnihi wa awlaadihi ibnihi as-sulbi muy doomam Cheikh Ibrahim ñii nga xam ne su fekkee ne sañ nañoo wax ne ndaw la ci at rek lañ ko sañ a wax waaye du ci xam ñi xam Baay Tuuti yépp nag war nañ koo xam ci ne du may raggante gannaaw lu ma gëmut du ko wax rawatina koo xam ne nag may waa juróom di nuyu it Cheikh Baye mi ko féetee ndeyjoor di sama sang di nuyu it Mahmoud Ahmad Mahmoud mi ko féetee càmmooy te ñoom ñépp ñuy ay meññeti Cheikh Ibrahim Niass ki ci digg bi meññeti Cheikh Ibrahima la ki ci ndeyjooram meññeti alaaj Mohamad Zeynab la ki ci càmmooyam meññetu Baye Mahmoud la yaakaar naa ne kon Cheikh Ibrahima ànd daak ñam àndatoon démb ba leew nag ca kër baayam xatee mu yàkkali gi te yàkkali gi yàkkali àddina yëpp maa ngi wax ne su fekkee ne ni alaaji Saalum waxee loolu la nit ñi di séentu ci man tey mu métti parce que ay aarif yu seen yaram tàng ñu sotti ba doyal ñu ne la ñii nag dañ doon lépp waaye yaay tekki ñi téye micro bi di tudd yàlla ba nit ñi àndatuñ ak seen sox seen sox seen bopp ma gis waa ju mën a xaal Omar Sall mu jóg taxaw téye micro bi di laaj benn waaye xaal la ci tànk bi rëkk ci tànk bi ma ne ko wallaahi boy nga waaye nag da sotteeku ci siib xam nga furno bu boyee xal la mais bu sotteekoo ci siib réer ma nekkoon kon alaa ji am saggan ba pare teralee ko kaay ñu xeeb la bootu dana la dal parce que yaakaar naa ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu jëmmam li ko andi ci kaw suuf mooy waa taabal ji liñ doon wax rek mu leeralal ko addina bi laa ilaha illa loolu rek la Cheikh Ibrahima ñëwoon pour mu leer addina bi Cheikh Ibrahima def ci 75 ans wala nañ ko gën a wàññi mu am 30 ans bomb bi tàkk mu yokk ci 45 ans kon 45 ans la nekk fii di sol nit ñi laa ilaha ba ñoom ñu doon jëmmi laa ilaha nga ne ma firi ko ma yaakaar ne kon am na lu ma dégg gut ba léegi te ki déggut nag su waree firi mu gën a lëj waaye ala kulli xaalin ñi ngi ndokkeel ñoñ jataay bi yépp di ndokkeel muqaddam yi fi tase sëñ daam ak Abdou Barhama mi wax wax ju kawe ji mu wax ci man gis nga tabe ci xaalis tabe ci poos dafa të waaye li muy të të tabe ci daraja moo ko gën a të summi sa mbubbi daraja joxe ko ku ko man kenn gënu laa tabe xam nga man ñan laa ñee ñi sori dàqee ba far ko doon laa ñee waaye ñi ci juddu nàmp ko buñ ci bokkee laa waaye ki sori nag bu dawee ba nekk ci sàppe su njëkk man kooku laa nag waaye waxam ji baax na loola ah. parce que jamono dafay nax léegi-léegi nit ñi indi dara fu mu nekkut xel yi lëj bu xel yi lëjee nag dafay baax wax yoo xam ne dana làqat ci ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant xam nga lu yem ni sa gàmmo sa njaboot wër la ngay nettali xikma te yore ay téere yu fees ak xikma te yow ci sa bopp nga nekk xakiim koo tudd turam ne dama déggee ñaari riwaaye yi ci moom danga wax ñi ànd ak yow ne kii bëgg naa ko naw naa ko bëgg leen ko naw leen ko man daal loolu laa gis loolu nag danay làqar ci yu bari lu lëj ala kulli xaalin man yàlla daf ma dimbale ma bëgg Cheikh Ibrahim ba maa ngi gën ci yàlla gisuma lu dul Cheikh Ibrahim yootuwuma it lu dul Ibrahim dara it safut ma lu dul Ibrahim foofa nag soo fa yeggee ku jeex ci Cheikh Ibrahima rek bëgg nga ko foofu boo fa yeggee ku jeex ci Cheikh Ibrahima rek bëgg nga ko ñu ngi koy gërëm ci xelam mu ñaw ci fasaaxatoom ci xikmatoom ci yaatoom doora dëpp nag sant yàlla seize ans seize ans sa jëmmi naa suutiya ñu denc ko ci suuf bër bu set sa leer di gën a feeñ ku am cër ci yàlla rekk moo moom loolu kon ñu ngi sant yàlla ci nuuru diine 97 ba 2013 seize ans noonu la seize ans toujours ñuy gën di gis sa leer ci ñi nga defar ak ci sa dëkk su may fàttaliku bi may njëkka dugg sañ gal galgoone kër yu bari tey amuñ fi woon ñu daan gàmmoo fee ci wetam ca zaawiya ba ànd ak ne fu ñu toog wetam la ñu xëy toxalee fa gàmmu gi samp fa zaawiya yaakaar naa yokkute la waaye tant bii ku gis tant yi paase da nga xam ne gàmmoo ngi màgg fu xat fa ba fii di bëgg a xat waaye nag borom jamono lu mu yàkkali mu yaatu xam nga Cheikh Ibrahima ñas néegam bi ci la daan recevoir àddina yépp te kenn mës na wax ne néeg bàyyi xat c'est parce que mooy moom di yawi lu yegg si rek mu yaawi mu dugg benn nigérien moo ma nettali mu ngi dëkk ci dàndume dëkk bu ñu naan dàndume Khalil Ibrahim Khalil Dandume lañ koy wax yàlla dafa def ay bëtam gisuñ moo ma nettali ne dafa ànd ak sëriñam ñuy ziyaare si Cheikh Ibrahim mu ne Cheikh Ibrahim bi ne bi ñëwee ba wàcc Dakar sëriñam ne ko ràbbal ma maanaam sëriñ bi moo wax taalibe bi sëlmaxa bi ne ko ràbbal ma xasida bu ma ziyaaree Cheikh Ibrahim waaye na doon ñaar fukki bayti ak juróom mu ne bi ñuy agseet ci mbaar mi mu am ñaar fukki bayti ak ñett mu des ko ñaari bayti mu ne ñu ñëw nuyoo Cheikh Ibrahima ne ko Ibrahima Dandume mottalil ñaari bayti yi des ci sa xasida bi te nga jàng ko ma door a wax ak yéen sa sëriñ yaa moom ci oto mu ne la ràbbal ma vingt cinq bayti nga ràbb 23 mu des 2 ngeen wàcc ci mbaar mi dugg di ziyaare mu may la temps pour nga yeggale li nga sumb te foogoon na yëgu ko kon ndekete lawxa lawxa bi yàlla di bind dogal yi Cheikh Ibrahima moom la koy rëdd ci tenqam muy gis kon lu mu waxut daf koo waxut waaye lépp a ngi ci kanamam looloo tax mu ne lépp lu yàlla bind lépp lu yàlla bind turan la wax de shahidtuhu lépp lu yàlla bind bi mu koy bind maa ngi teew man kon kooku mooy kan kooku mooy li yombal ki yombal liy tëwoon ay yónnant wax naa keroog fii na ñaari yónnant a ngi li bàyyi doon séddale ba mel ni dafa dafa bëgg a lamb sax ndax bëriwaay gi dafa tëwoon ñaari yónnant ñu sonn lool pour uti ko ñu uute waxte bokk wax yontu yàlla Musaa lu wax yàlla wan ma sa bopp xam nga wax ji la oddut rek waaye yàlla la bëgg a gis yoon ci yàlla Ibrahima ne ko won ma ni ngay dekkalee su ma ne woon alaaji saalum rendil mu dee nga dekkal ko bu ko alaaji saalum di def fekkee ne man lay wat opération bi danaa gis rey gee dekkal gi waaye dinaa ko gisaale kon mooy won ma sa bopp rek ba tey li kee wax la kii wax di kee daf koo tëb ne yàlla won ma kii mu ko mu bëgg a wax yàlla won ma waaye fàttaliku ne keekat ba mu ko waxee yàlla daf ne ko doom a gis mu ne yàlla won ma ni ngay dekkale ku lay won opération dekkal kañ da ko gisaale kon ñoo bokk lu ñu wax ñoom ñaar nag loolu tëwoon leen bañ koy sàkku ji ci seen borom yàlla dafa nommé Cheikh Ibrahima officiellement ne ko tasaare ko ci àddina bi ba ñëpp jot looloo meññi tànt bii ñu toog tey moo tax ci commencement bi buñ fàtte mukk na ci gàmmu lañ nekk luñ ñu bamax bamax nañ wax ci fi mu déparé woon ànd ak ne gàmmu nag kuñ ne gàmmookat nga sonn nga xam nga lu tax bàyyi jeexal na gàmmu tàkk garab gi dafa rak ñi ci am chance nag mooy ñi am naxama Cheikh Ibrahim bi nga xam ne bu ñu sëñ aadi muy gàmmo baat bi di nuroo gàmmo bàyyi bàyyi la ñuy gis uute naag bàyyi tuuti mi baat bi xodor ba ñemewut a wax waaw yi Cheikh Ibrahima daan wax ñoo ñoo am problème mais gàmm moom baay jeexal na ko garab gi rag na moo tax soo mënta wax ci ki daan gàmmoo sa gàmmo du saf xorom yi ñi daan déglu ka daan gàmmo mais nag gannaaw ne nañ ñu yaay gàmmoo danañ gàmmo moo taxoon ma tànn fi yàlla di waxee ne ko mooy yaaye ji ma njàkk a jàng allazina yattabi'una rasul annabi al ummi yàlla mooy wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a topp rasul nabiyu ñetti façon yonent ñoo am rasulu nabiyu mabuusu yàlla tudd ñaar noppi ci benn waaye bi mu noppee ci benn tudd na ñett yépp yàlla def ne rasuul mooy kuñ yónni jox ko risaala nabiyu mooy kuñ yónni muy def te nëbbu mabuusu mooy kuñ yónni kon bi mu waxee rasuulu ëmbaale na mabuusu bi mu waxee nabiyu ëmbaale na mabuusu loolaa tax gannaaw ñaar yi tuddaale nañ benn bi yàlla yem ci ñaar yi ndax dafa fasaadu perdre loo nit ñi temps mu noppi ci bi nga xam ne bu ko tudduti tudd na ko mu mel ni dañ ko laaj ne ko ki nga bëgg a wax mooy kan mu ne al ummi muy tagg ci yónnant bi di xas ci ku dul moom képp koo fi wax ne ko jàngoo làkk wa nga nàmp ca sa yaay dong nga dégg xaste la ba mu des yónnant bi nga xam ne ñi jàng ñépp moo leen di jàngal te jàngut astafurlah te jàngut ci jàngin wi ñu xam alifun baaun taaun saawun mais njàng mu mag ma moom rek a ko jàng mu mel ni dañ koo laajaat ne ko yow yàlla ba léegi xamaguñ ki nga wax mu ne mooy ki ngeen fekk yéen ci seen téere yi ñu bind ko wax nañ ko ci tawraat wax nañ ko ci injil wax nañ ko ci zabuur wax nañ ko ci suhuf Muusa wax nañ ko ci suhuf Ibrahim waaye su yàlla tuddee yenn itlaaqil juz wa iradatil kull la tudd benn parti bàyyi benn parti ci tajassus soo waxee ne arsaltu uyunan yónni naa ay bët bët amul tànk bay dem nit nga yónni pour mu xoolal la nga gàttal ko tudd lii xool ci moom su ko defee ñu xam ne nit nga yoon yónni waaye mission bi nga ko sant mooy demal xoolal ma ki ngeen fekk seen téere yi bindu turam wi muy tawraat ak injiil waaye nag su waxee loolu waxaale na zabuur waxaale na suufu Musa waxaale na suufu Ibrahim ba mu jeex mooy ki leen di digal lu baax ki leen di tere lu bon ki leen di won yi dagan ba ngeen xàmmeekook yi daganut ki nga xam ne moo leen di won yi ngeen war a moytu ki leen di sippil lin ci yéen di leen ommat ba do yàlla ki leen di gawil tënk yi kooku nag ñi ko gëm dimbale ko topp leer gi wàcc ci moom muy alquran yàlla mu ne mooy ñooñu ñooy ñi texe moom yàlla mu waxaat ko ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina ñun yàlla ñoo la yónni nga ñeel mbindeef yépp kon bépp yónnant bu yàlla yónni li ngay foor foor yaa ngi ci alamina kon su fekkee ne jëmmi yërmande la ñeel alamina amut benn istisna bu ci am képp ku bokk ci na bokk nga ci loolu mooy dafay wone kawe gi yónnantu bi gën a kawe yónnantu yépp ak ku dul ñoom mu waxaat ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin yow yaay aji mati jikko ma ne nit ñi dañuy gàmmo ci yàlla ci yónnantu bi am ñu summeeku di leen critiquer waaye yàlla moom dafa gàmmo ci yónnantu bi ba gàmmo ci boppam moom yàlla bim ne ko yow yaay aji mati jikko te moom moo defar ajimati jikko kon moom ci boppam dafa wax ne moo mën a defar danaay wax ne su ma jëloon kayit bind ci bismillahi rahmaani rahim xoolaat ko ne ndaw mbind mu rafet wax naa ne mbind mi rafet na waaye waxaale naa ci ne maa mën a bind kon su yàlla waxee jikko ju rafet ju nekk ci yónnantu bi waxaale ne moom moo mën a defar borom jikko ju rafet jamono nag dafay soppeeku tànt bi li muy rafet rafet yónnantu bee ko moom waaye am na ñoo xam ne lii rek lañ bañ liñ lay wax mooy yónnant bi musta gàmmo saxaaba yi musta gàmmo kon boo ko fi defee bidaa la sa borom borom kooka safara la jëm mais danaay wax ne ñi mel noonu damay wax ci ñoom ne seen paaka bi ñaw na mais dañ koo jam ci der bu tul dañoo fekk Cheikh Ibrahima pare ci ñun moo tax lañ ñuy sikkal ñun dañuy xam ne taar la parce que Cheikh Ibrahima ngi ci te Cheikh Ibrahima lu mu nekk taar la tànneef fi yàlla lu mu nekk tànneef la kon lu Cheikh Ibrahima nekk tànneef fi jëf la nañ leen ko nangul ñi ñuy wax loolu yépp tey sëñ daam ku ci aji màkka ci ñoom dugg avion te yonent bi gëléem la waroon la ca des mu dox kook tànkam fekkee ne dañ koy toog topp tibqal asli ku ci aji màkka na dox la ca des na ko war gileem ma la buñ takk montor buñ yore portable buñ am passeport buñ am carte d'identité ndax li yëpp yónnent bi amu ko waaye lekk ceebu jën buñ roof dugg oto climatisé yegg ci aéroport bi def formalité joxe passeport ak billet yéeg avion wàcc jëdda yéegaat avion wàcc a war dugg car climatisé mu wàccee la Taneim nga duggaat mu wàccee la Makka nga jóge fa booy dem Minan yaa booy dem Arafat yaa booy ñëw Musdalifa yaa kaar booy dem Minan noonu booy dellu Makka noonu di fanaan ci néeg buñ climatisé troisième étage gàddu kaamili alquran te kaamili alquran musta dajee ci jamono yónnant bi soo paree nag ñu wax loolu nga nekk lum doon moom parce que bu fekkee ne liñ nekk bidaa la yow yaa ngi yore yow it bidaa kon boo yoree ñu yore te nga mën a faj tàmbalil ci sa bopp ku mën a faj dangay ngay tàmbalee sa bopp waaye man nit du ngaana gis ma ma tomb tomb yu xonq nga ne ma lii sa yaram wi gaana la danaa ko gëm parce que mos nga feebar bi waaye boo ne ma kaay ma faj la te yow wéragoo dama lay fajal sa bopp boo paree ñëw ci man Cerno Moussa nga baal ma benn pël daf maa waxoon ne ma am naa sunguf soo xam ne doo ko laal te amoo xaalis ma ne ko man de li ma ci jaaxal mooy yaa ngi may ñaan paas boo ñibbee sunguf soon xam ne boo ko laalee am xaalis ah ba pare yow ngay ñaan paas boo ñibbee bëgg ma da nga maa bëgg a nax rek waaye yow fu ñu amee xaalis xamoo ko non Cheikh Ibrahima Niass est très fort dafa am benn waaye dafa bë dafa bëggoon critiquer nag mu ne ma sëriñ bi bu génnaan istiraaxa dafa may taxawloo ci kuuri école bi mu ne ma sëriñ bi suñ gaa yi dañuy wax ne ma ne ko lu sa gaa yi waxati mu ne ñu ne seen gàmmoo yi feeñ tele la ak lekk cere ak wane seen mbubb yi ma ne ko méri na moom mbubb lum foor foor nit ñaa ngi koy sol toog ca bayo ba kooku lu muy wane ma ne ko cere ju naqar yi ñun gàmmo lañ koy lekk kii daf lay indil doom bu sew kii indil la doom bu dijj kii indil la bu saf laalo kii indil la bu safut laalo kii tayal far du ca def laalo indil la cere sàq nga dajale yëpp yóbbu ko sotti ci ñeex mi pour nit ñi am lu ñu dëgërloo ba mën a toog dem ca tànt ba déglu ci Cheikh Ibrahima ñas muy wane yónnant bi téye ko ci loxoom di ko wane nit ñi di ko gis kon ñun dem seeti yónnant bi moo ñu yóbbu ci tànt bi mais du wane dara du feeñ télévision gis nga télévision nationale ñun la gën a xañ national la de mais national gi wadd na bu yàgg parce que national ki yore loolu ci teen xam li mooy Cheikh Ibrahim ku ko xañ joxoo kenn nag dañoo gàmmo gi Bachir Actu Bushra lana nilna al Facebook YouTube takku takku takkusaan yéen a ngi déglu Al Bachir Actu-Media Allahu akbar Allah Bachir Actimedia Facebook YouTube nit ku solu sañseem ba baax sol drap sol jàppaat sol nekk mu rafet nga di ko waneel dàlli carax yi ci suuf rek ba ba pare naan ko sa toilette bi wane naa ko nga ko saboté Sénégal ku fi wane te wane woo Ibrahim yaa ngi saboté Sénégal parce que Sénégal bi joxe goo nit ñi danañ aaye lu nekk waaye nag nit ñi am fulla ñan ca lañ nekk maam sama njar mu neex mu sedd may naan di toqamtiku nga ñëw ne ma sa njar mi dafa forox tuur ko ma utal la njar ngay dem uti njar indi ma mos bu sama bos dàqee sa bos ma delloo la sa bos continuer ci sama bos bu sa bos neexee ma naan ko ba mu jeex te ma continuer ci sama bos sa ñëw bi bu naqaree ma tuur ko bu neexee ma naan ko continuer ci sama bos parce que xam naa ne sama njar neex na maa ngi giñ ci yàlla li bàyyi yore ku ko yorewut xamagoo luy neex non soo ko waxee ñu ne fayantoo fayantoo dangay ngay faral da ngay maa ngi giñ ci yàlla xale bu ndaw jànq bu ji xale bu jigéen boo xam ne ci toll ci ut borom kër la toll fëgg dënn bi daanu ci suuf wax loo xam ne am na xalif généraux yu koy weddi non bàyyi mën a séddale moo mën a séddale bàyyi day toog di la gàmmool di la wax yónnantu bi di la wax yónnantu bi di la wax yónnantu bi ba mu yàgg rek mu mooñ la rek soppali la yónnantu bi ngay dox di dem lu mu waxati nga dégg ko lay fii kan moo fi toog rek te ootewut ne mooy moom kan moo fi toog gis nga dafa am ñoo xam ne dama leen di yërëm da ngay gis gàmmokat bu toog di la gàmmool nan la yónnantu bi taseeg yónnantu yëpp jiite leen ñaari rakka waa fan moom miy jiite mi ngi dund ñi muy jiite dañoo dee ndax yonent bi dafa jéggi dem ca deef jiite wala ñoom dañoo dekki ñëw ci dund mu jiite leen fu jiite ku dund kuy ñu dee la ndax dafa jéggi dem fekki leen ca dee jiite leen wala ñoom dañoo dellu si ci dund mu jiite leen nañ ñu leeral la loolu ba dañoo continuer bu sëlmalee fa mu jëm amagut importance parce que fi mu leen jiitee xamaguñ non gaa yi ñoo mën a lëndëmal te foog ne dañuy leeral war li gën a gaaw njëkk a départ asamaan su yónnantu bi dem fekk fa ab yónnantu bu toog kañ lañ ko doublé duñ ko boole ci gàmmu gi li lay yóbbu di dem di dem ba mu yàgg mu ne la fii laa mën a yem avancé te loolu la doon yóbbu ñu toog rek xaaba xaw sëy ni aw addina fa awxa ila abdihi ma awxa non sote nañ dara bi mu wàccee lii lu mu war ba continuer loolu pour nit ki dégg ko da nga koy jël def ko ki doon jiite danga koy jël def ko jëmmi ki doon jiite ki ñuy nettali ay axbaaram temps boo ko doyee luñ lay nettali ci ay mbiram jaratul chara parce que xam nga ko nekkut a dégg am paate rek ñu ne def nañ ko yónnantu bi paate toog ba mu yàgg rek mu ne maay yónnantu bi cinquante personnes wër ko te kenn weddiwu te ñëpp dëggal nañ ko te li wax ñëpp wax nañ ko te nangul nañ ko seen bopp nangul nañ ko ko te yónnantu bi di kenn téeméer oote ndoor ne ñang fa non bàyyi fort mais li muy for for nag maqaama nguru la yore ngunu nguru nguru sax lay for dugg ak moom ci biir soppali nguru comme moom nguru sax lay for dugg ak moom ci biir bu génnee muy nguru ñun ñëpp sax lañu woon bi bàyyi duggee ñun bi biñ génnee ñun ñëpp bàyyi lañ qad ata yunichu lquluba jamian wa yanshur diina din lahlil garaami yonent bi dafa ñëw ngir propulser ñu ngir arroser xol yi sans exception xol yépp ko tax a jóg nga gis nga gis koo xam ne jullit la yonent bi pare na keroog bañ waxee al yawma akmaltu lakum ko keroog la lépp ma ba léegi am ñu fi nekk seen xol yi arrosé wuñ ko wow koŋ ñu dem ba mu yàgg am yeneen xol yu commencé nag di dekki ñuy arrosé muy tooy mais kon est-ce que yonent bi moo fi nekk di continuer effectivement moo fi nekk di continuer à travers Cheikh Ibrahim man na xaw ma damaa xamul yónnantu bi moo soppeeku bàyyi xaw ma bàyyi moo soppeeku yónnantu bi ala kulli xaal ka wax mooy kii ah alhamdulillah diinu hadiin diinu xaqin diinu sidqin non am na lu jar leeral la ah ñun ñëpp nangu nañ ne islam diinu xaqin wa diinu hadiin diinu njub la waa léegi kon ñi fi nekk ñi fi nekk xam nga yonti yàlla Moussa ba muy tasee Xudar lu mu ko waxoon ndax du ma ànd ak yow ndax ma jëlee ci am njub yónnantab yàlla mooy tasee ku duut yónnantab yàlla bëggee ci moom njub te boobu moo yore risaala ilaahiya donc c'est incomplet Moussa moo tasee keneen nekkoon ko dama bëgg ànd ak yow ndax ma jubee ci yow te diine diine yu njub la yonti yàlla Moussa moo yore woon diine ji ndax kon lim yore woon àndut ak njub c'était incomplet matu sëñ daam boo fi amoon benn mille francs nga ne face bi daal dessin bi ñu fi def neex na ma loolu man benn beneen face bi moom ma neexut naa ko dindi boo ko dindee ñàkk mille francs kon ku yor benn côté rek li nga am matu jëlal sa mille francs rek nga peinture benn boor bi ba mu verte rek nga dem di ko jaay xanaa nga lem ko benn boor bi rek jaay ko taxañ ko jaay ko ko mais ku ko tàllal ne la baaxatut pourtant moom la ba léegi yokk gañ ca yokk rek a tax a non il est très fort bàyyi yonent bi dafa ñëw indi leeral ba ca naññi ga nit ñi gën a réer Cheikh na Ahmada Tidiane ñëw yokk ci leeral ba sonn nit ñi di gën a leer am na jullit boo xam ne foo fëggee sa dënn tudd baat bi mu ne kii xéefar la am na tijaan boo xam ne foo fëggee sa dënn tudd baat bi mu ne kii xéefar la kon le complément chez Cheikh Ibrahim mooy mottali ah mooy mottali mu tax benn waaye buy jàng bay ci bàyyi bàyyi di tagg yónnante ba mu yàgg mu ne <laughs> billaay moo man a naxaate ma ne ko ah kuy naxaate bàyyi mooy naxaate lim la waxoon jotoo ci mu ne ma ankañ waaye kii muy wax ne moom la doo paase na ko man kooku sax paase naa ko bàyyi bu la jàppalee mbëggeelam ci yónnant bi waa ji mu ne damay naxe rek moom la rek dafa bëgg a réer rek moo tax maa ngi fàttaliku maam Lamine Diop papaay Baye Diop mii dama ko mos a wax ma ne ko maam bi ngeen tarbiyoo ba xam yàlla ngeen toog bàyyi di leen gàmmool ngeen jàkkaarloo moom mbooloo mi bëriwut kenn du yàqal kenn ñëpp ngi jàkkaarloog jant bi mooy ñëw toog ci gàngunaay di gàmmu ma ne ko bu aksiyaan ci rañaanam yónnantu bi nu ngeen di def mu ne ma di dee di dekki rek di dee di dekki rek c'est la vérité moo tax mbër maa ngi ci biir làmb ja xam nga bàyyi bu weeru rabi a jotee mu ne tabibi qaribun hal siqaamiya tasmau yuqaabiluni yowmil muqafal mushafau tabibi qaribun sama docteur bi jege si na xam nga ku muy wax weeru rabia wi yónnantu bi ñëwoon muy fàttali feebaram bi ne ko attention weer wi yónnantu bi ñëwoon te koo koy sama soppe moo jeexal sama xol bi kooku nag su ñëwee benn feebar dootu dañ dootu am njariñ fii de booy boo nga taxañ say baas de xël si xaamiya tasmaw yow sama wopp mbaa dégg nga tabibi xaribun sama sama feebar sa bibi xaribun sama docteur bi jege si na xël si yow sama feebar mbaa dégg nga ma yuqaabilu ni yow mi tey damaa am rendez-vous ak kan al muqaffal mushaffa ki nga xam ne moom lañ war a topp ay jeexitalam ki nga xam ne mooy ràmme mal qiyaama moo tax moo tax bu ma déggee ñu gars yi di yonent bi shafaatoom gi moom la ñuy njëkk ramm mooy njëkkër a ramme ma ne d'accord yéen àllaaxira ngeen di wax waa kii ramme fii nag kii départ yow dugg ak yow aljanna fii bala ñoo wax ci kee nañ wax ci kii attention waxuma ne bàyyi raw yonent bi de parce que li ma am ci yonent bi la ko amee mais nag léeg-léeg alaaj saalum boo tunqoo sa doom mu sut la waaye sa bopp la la sutee mën naa yëkkati affaire bi muuree ko sama bët yaa ngi jooy rek nit ñi dañuy foog ne xaal la fekk lumière bi may jam moom la attanul muy wadd li ma doon xaal tuddkat yàlla yi bi ñu tudd laa ko xaal ndax léeg-léeg ma ne koros Baye jóob ne ko boo sàgganee ñee rey la des fi lankal waaye damaa gisul ñu jóoral ñu tàngal dañ ñu ko daan jóoral nag su tuddkat yàlla yi commencé di tulli rek yow itam ngay njëkkalante tàngal ji rek feeg yaa ngi yëg cafkaay tàngat tàngal bi doo ànd ñoom ca xalangu ba yónnantu bi sallallahu alayhi yónnantu yépp ku ci kawe rek moom moo la may sa kawe gi suñ maam aadama dafa tooñ borom bi iblis tooñ borom bi ñaari jaamam ñoo ko tooñ ci benn déngëre kii tuub ñu baal ko kee tuub baaluñ ko luy différence bi sa ñaari jaam yoo moom ñoom ñaar ñu tooñ la ci benn place lañ la tooñee ci menn mbir lañ la tooñee kenn ki jéggalu nga baal ko kenn ki jéggalu jéggaloo ko li ko may aadama c'est parce que ci ndiggam yont yàlla muhammad ma nga fa te yont yàlla muhammad kuñ jéggal la ku jéggal ku ànd ak moom duñ la xisaab loolaa may aadama bu jéggalu ñu jéggal ko Iblis nag amutoon chance moom ma nekkut ci ndiggam li mu lu ñu bañal ko ñu laaj ko laaj malaaka yi malaaka yi mënuñoo tontu ci salle d'examen ñu laaj aadama aadama la dal malaaka yi moo ko dal mënta tontu waaye ci ndigam dafa am ku xam tontu tontu mu jaar ci artères yi dem ci corde vocal génn ci tempawu malaaka yi ñu dégg tontu bi mu sell ñu foog ne aadama tontu te aadama tontu fi mu nekk maay wax nii su ma saaga woon Omar Sall ci haut la koy déggee ndax day jël et dem dóor haut-parleur ne moo ko saaga kon ndekete duut fa nga ko déggee fa la wax ja déparé mais fa mu jugee fa la moo tax aadama haut la woon rek yonent yàlla moo man mooy tontu ci ndigg li ñu di ko dégg foog ne am na xam-xam te ki am xam-xam mi ngi ci ndiggam li ca des amutoon chance bi moo tax mënu ko woon a tontu. moo tax Cheikh Ibrahim ne ko Seydou li mustafaahum shafiu yowma izzi tashfii kulli rasuli rahmatul xalqi asluhu man anaara alxissa wal aqla bur a kullu alilin wa xabibullahi aljalilu qadiman minhu naala alkamalu kulla kamili minhu naala alxufraanu aadam min qabl wa ilmu alasmaai min za salili minhu ali niyaari bardan salaaman li abihi barhama gayru qalili minhu yamul kalimi saara yabuusan minhu takmiluhu ka taklimuhu wa kullu jazil minhu raqa ruhul karimi li aala gayru maslubin wa huwa gayru qatili summa ayub summa yusuf summa ismail naalu najata min zas jamili ثم أيوب يوسف ثم إسماعيل نالوا نجاة من سجميل صلى الله عليه وسلم bàyyi mu ne Seydou Rusli yónnantu yëpp buñ moom mooy seen sang Mustafahum mooy seen ak tànneef bàyyi mu ne Seydou Rusli yónnantu yëpp buñ tajee moom mooy seen sang Mustafahum shafiu mooy yow ma yowma izzi tashfii kulli rasuñ buñ demee ba yónnantu yëpp taxaw ku nekk saw xeet daw gis la ñii bërdi bërdi ñëw ci yonte yàlla ibrahima ne ko sang bi ñu de yow lañ doon xaar dañoo bëgg nga ramm ñu mën a dimbali leen ma man damaa naroon aw nar te xaw ma lu ma ca yàlla di teg moo tax damaa soxla man ci son bopp ku ma ramm te xam nga lu muy ooyee aw nar ñëw na ñoom ñu yore ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett mu ne leen seen yàlla yi baaxut jàpp leen yàlla ay dëgg mu ne leen bàyyi leen seen yàllaay caaxaan yi ngeen jàpp yàlla ay dëgg ñu ne ko ñi ngi am ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett suñ soxla yi di tag mënta faju nga bëgg ñu éliminer 312 dese benn yàlla mu gën a tëleeti mu ne waxuma leen ngeen éliminer 312 dese benn dama ne li ngeen tuddee yàlla benn ci baaxut sànni leen ko ñëw ci yàllaay dëgg ñu ne kii dof la mu bàyyi leen bañ dem mu jël sémmiñ dugg ci biir jàngu bi ferej seen yàlla yu ndaw yépp wekk sémmiñ wi ci yàlla ju mag ji dem tëdd ñu dem wàcc daal di ñëw fekk yàlla yu ndaw yi ñu ferej leen ñu téye seen gémmiñ inna lillahi waaye ku ferek suñ yàlla yi lii moom kenn defalu ko Ibra Ibrahima moom rek moom mi contre suñu yàlla yi moo fi ñemee def lii ñu ooye ko Ibrahima yow yaa ferek suñ yàlla yi mun a déglu leen yéen ki ferek seen yàlla yi ngeen koo ñemewut yàlla ju mag ji dend ak yàlla yu ndaw yi merci li ngeen ko dendaleeg yeneen yàlla yi mu jël sémmiñ gor yàlla yu ndaw yi wéeg ko sémmiñ wi ngeen ñëw gis sémmiñ wi ci mbaggam mi ñemewu leen ko wax ngeen di ma tudd ñu ne ko kii nu mu mën a jëlee sémmiñ ak fu mu koy jëlee ak nu muy demee di gor mooy leen ku mënta def mënta dindi nu ngeen koy toppee di ko def yàlla loolu mu ne woon seen yàlla ji moo gor loola lay tuddee aw nar moom ma nga jaaxle ca loola ndax dana dugg aljannaam déet xam nga kooku ku yaakaar mu ram la du la ramm ñu daw ñëw ci Moussa mu ne man damaa rayoon nit te xaw ma baal nañ maam déet ñu daw ñëw ci Isa mu ne man kat dañ maa ooteel ne doomi yàlla la te xamaguma nu yàlla di xisaabee loolu ak man kuñ daw dem rek nga indi aw lay waaye bàyyi mu ne shafiu yowma izzi tashfi'i buñ demee ba nga xam ne bépp yónnantu lottu na pour ràmm aw xeetam moom kenn rek fay ràmm bàyyi mu ne rahmatul xalqi asluhu man anaara alxissa wal aqla bur akulla alili raxmatul xalqi mbindee yàlla yépp mooy yërmande ñeel leen te itam mooy seen cosaan mooy kii delloo si ak yëg waaye xoolal rahma jël ko ci rahmaan yi ak rahim ñaari turi yàlla yooyu benn waaye daf maa mosoon a laaj mu ne ma rahmaan yi ak rahim luy seen différence ma ne ko nit ñi dañuy firi ne rahmaan mooy yàlla mooy yërëm bépp mbindeef rahim yi mooy yërëm jullit daal àllaaxira mu ne ma waaw mu ne ma waaye loolu seen différence bi ma ne ko seen différence bi li tax yàlla di gënale kii ci kii ci ñaari mbindeefam mooy tey su ma jëloon et xàcc ko mu jëm si ci sa xarxaram bi nga jël loxo tegal ma ko xarxaram bi yow la loxo bi yow la nga nangu et wi dal loxo te du dal xarxaram kon am na fu la gënal ci sa jëmm ji te ñaar yëpp ci yow lay métti ñaar yëpp yaay gaañu ñaar yëpp yaay nàcc waaye am na bu ba ca des kon kenn nag yërëmut ku boppam kenn yërëmut ku dul boppam am neewa sax soo ko gisee ci nit di ko yërëm ngaa ñëweti si sa jëmm ji neewa bi su nekkoon ci yow ba nga yëg métit wi ay tax nga yërëm ko ca lam yore moo tax su yoree feebar boo xam ne mosulaa gaar sax mën naa am doo ko yërëm parce que xamoo feebar ba kon su fekkee ne mooy rahmatul xalqi bàyyi daf caa junjaale ne xalqi yëpp ñi ngi génnee ci moom ci haqiqatu muhammad yi lañ pëllee parce que kenn yërëmut ku dul boppam te moom mooy rahmatul xalqi kon maxluqaat yëpp ci moom lañ sax parce que kenn yërëmut ku boppam bàyyi kon ne na moo ëmb ñëpp wa habibullahi aljalilu qadiman mooy soppeeb yàlla bi mu maa gëme du yàlla yàllaay moo ma bind rek yem ca de yàlla ca kañ xam ca ba daje lépp daje xadiman waaye du léegi de duwul bi mu juddoo màkka la koy door a doon de habibullahi doon na ko bu njëkk mooy ba mu nekkee ci xàqatu muhammadiya bàyyi teg ca nag ne minhu naalal kamaalu kullu kamilin koo gis mu mat lam matee ma ngi ko jëlee ci yonantu bi koo gis mu mat lam matee ma ngi ko génnee ci yonantu bi ba bayti Ibrahima doon jàng léegi yonantu bu nekk baay wax la fa mu jóge yonti yàlla Ibrahima bañ taxanee lobb bi taal ko ba muy jër-jëri ñu beelaa beel ko sànni ci kaw safara si yàlla ne safara si nekkal sedd te nekk sedd ab jàmm mu toog ci biir matt miy jër-jëri matt ma lam daan meññe ba mu tooyee poyteef ya di ko fekk ci biir safara si yontu yàlla Ibrahima di lekk di bànneexu ci biir safara si parce que kim àndat du lakk ci ndiggam yonti yàlla Muhammad ak fa Isa bañ ne rey nañ ko salab nañ ko yàlla ne reyuñ ko salabuñ ko maa leen ko melalal noonu waaye maa ko yëkkati la taxoon mu def loola suñ ko salaboon wala ñu rey ko yonent yàlla moom ma day dee parce que mi ngi ci ndiggam moo tax ñu naxasal seeni bët yéegal ko ba mën a ñëw ak siyaat ci àddina bi Moussa ba muy jël etam wat yi dóor ci géej gi mu xar mu dox ñëw jàll xéefar si topp ci kawam géej gi tëju ñu dee la leen rey mënoon naa rey Moussa waaye la leen la ko garanti moom garanti wul ña ca des mooy ka amut garanti mooy suux ka am garanti jàll parce que boobu yonti yàlla Muhammad a ngi ci ndigili certainement ils nous diront fu Cheikh Ibrahima jëlee wax ji bayti suñ na la ku ko wax nga ne bàyyi ñu ne la bàyyi dafa fekkee loolu comme xamoo kuy bàyyi laajteel ndax bàyyi fekkee na ko waaye nañ bàyyi li wax ñu seeti li nga xam ne dañ koo wax ci kanam yónnantu bi yónnantu bi nangu ibnu abbas moo nettali ne yónnantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo toog saaba yi wër ko mu wax ne lama xalaqa allahu aadam ahbatani allahu ila al ardi fi sulbihi wa jaalani fi sulbi nuuxin fi safinati wa quziftu fi naari fi sulbi ibrahim ba xadiis ba jeex bi yàlla bindee aadama la ma wàccee ci kaw suuf def ma ci ndiggam kon la bàyyi wayango moo ma dugal ci ndiggal nuux ca gaal ga moo ma dugal ci ndiggal ibrahima may jàllar bu ko ca safara wa te lakkuma kon la li bàyyi di wax nii mooy la yónnantu bi wax ci wesar yo bàyyi way ko andi ko teg ba mu paree rek abbas bàyyi tax yónnantu bi jóg toog ne ko sang bi dama laa bëgg a way mu ne ko woyal yàlla bu sa gémmiñ boor ci la woy loolu nga xam ne moom lañ déggoon Baye Niass di ko ubbee gàmmo du Baye Niass moo ko taalif waaye Abbas bàyyi taxi yónnant bi moo ko def min qabliha tibta fi zilalin wa fi mustawdain xaysu saxul waraqu summa habata albilada la basharun anta wala mudgatun wala alaqu min qabliha ca njëlbeen Abbas mooy wax bàyyi taxi yónnant bi ci kanam yónnantu bi mu di ko déglu min qabliha ca njëlbeen amoon nga tu existais avant l'existence min qabliha amoon nga ca njëlbeen waaye nag tibta fi zilalin yaa ngi amoon de ne fa dégg rek ci ak lëndëm parce que leer bu ëppee moog lëndëm ñooy yem maqaama xam nga leer yàlla la lëndëm yàlla la ñoom ñaar leer yàlla la lëndëm yàlla la bii mooy zahir bii mooy baatin te yàlla ne na mooy awalu ne na mooy aaxiru ne na mooy zahiru ne na mooy baatinu kon ñoom ñaar dañoo doon frontière ci lenn kii daf ne ko maay sa pile kii ne ko maay sa face bii nuuraani la bii zulmaani la mu ne ko amoon nga leer gi leeroon ba tax kenn gisu ko parce que ku koy gis nekku fa moo tax mu ne ko nga tey nekk ci ay pays lëndëm yu kenn gisul summa habatal bilaada nga wàcc ci pays boo xam ne laa basharu nit amu fa kon yoon yónnant bi ci boppam fekkoon ne ka wàcc nit la kon du ko wax ne ko laa basharu ni su ko waxee laa basharu daf koy wax ne illa anta waaye su ne ko laa basharu kon waxatul ko ci pays naasuutiya mi ngi koy wax ne ko amoon nga mais la am duut am ak doomu aadama nit kuy dox ak ñaari tànkam mu bëgg ko woon nag ne ko atuwaar yi doom aadama di ñëwee ci kaw suuf du am googu moo tax may wax mudra alaqa dem ba mu yàgg suma ma kaw naa ba mu yegg ca suma ma naaw loolu muy atuwaar yi doomu aadama di ñëwee ci kaw suuf muy wax yónnant bi ne ko ba ngay ñëw yow doo loolu doo nit kuñ ëmb ci atoir yi ëmb bi mooy lan jigéen yàlla daf koy defal ñaari mbuus benn dafay nekk fii am ay boydaat ci ndeyjoor am beneen am ay boydaat ci càmmooy dafa am luy mel ni loxo tubaab di ko wax tromp tromp boobu dafay tiim loxo bu weer wi jotee fii mooy ñoral benn nen bu beneen weer jotee fii ñoral benn nen loolu mel ni loxo am ay baaraam su nen bi ñoree moo koy jël su ko wonnee ba mu si ci sulus bi fala nen bi di taxaw su tëddee ak góor benn toqi ma nii bu nekk ay million yi million lay yore ci lu mel ni teeñ benn toq bu nekk ay millions lay def ci ay ñarment yu mel ni teeñ yooyu nag su ñëwee tasee si ak nen bi su ko pelemoo li saalum saalum di wax pelemo wann ko ba mu jeex tàkk dafay am benn doom soit muy góor wala muy jigéen su ko wannee mu maase dafay doon ay cheikh waaye cheikh benn qualité lay doon góori kese wala jigéeni kese su ko waññee wa wannee waaye mu am ay ngiñi bu boobaa nag dafay doon cheikh yi ndiixi ndaaxa góor ak jigéen su ko wannee nag day jóge ci ceeru trompe bi ñëw ci fi nga xam ne mooy fi jëniin di tëdd liñ ëmb fa lay tëdd foofa muy tëdd nag li tax jigéen ngeen baal ma amul fermeture ba pare te doom ji nu muy gën a diisee yaay jii di jóg di taxaw te doom ji du wadd lu ko waral parce que yàlla dafay ràbb ay buumi deret foofu su ëmb amee buumi deret yooyu ñooy mbaal gone gi muy màgg ci peggam di ànd ak moom suñ demee ba weer wi dee ñeneen bi ñor na Trump bi jël na ko waaye tëddut walla bi mu tëddee wan na amut ci diggante bi kon ëmb du am su weer wi jeexee yàlla day dogaat buumi direct yi pour bañ mu des fa toogaat fa ba beneen weer muy nëpp ci biiri ndaw si loolu mooy règle bi ndaw si di gis su fekkee ne ëmbut mu def fa lu war man ñeent fukki guddi mu mel ni yàpp wóoyee ba mokk ni muy mel noonu la doomu aadama ji di mel mu defaat fa 40 jours yàlla ràbb ko mu doon yàpp ak yax mu jël yax yeeg yàpp yi muuree ko ab der mu defaat fa yeneen ñeent fukki guddi muy 120 jours téeméeri fan ak ñaar fukk doon ñeenti weer yu mat yàlla jëlee ruuxu alamul arwaax wàccee ko ci biir yaayam dugal ko ci biir jënin bi tëdd ci biir sans mu def opération ak anesthésie amul tëddal ci taabal ji amul indi ciseau amul indi li ma koy ñawee amul dara da ngay toog di lekk yàlla def opération bi wala ngay dëbb wala ngay waxtaan wala ngay nelaw doo ko yëg sa jëkkër ji dend ak yow du ko yëg sa doom yi sa xarit yi ñépp mën nañoo toog yàlla jël roxo traversé étape yi dugal ko ci biir jëmm ja mu fees jëmm ja yépp mu door a mat loolu ngeen di dégg médecin yi di wax ne avortement à haut risque ëmb su demee ba am ñeenti weer ñu ne su fekkee ne dafa am avortement avortement boobu mën naa lor yaay ji liñ gisut mooy machine yi yore mën naa gis jëmm waaye mënta gis roxo suñ xamoon ne keroog la ci roxo dugg danañ xam ne roxo keroog la ko mottali doomu aadaama mu mat nit kon suy génn nitay génn su génnoon avant loolu lu matul nitay génn su génnee après loolu nag ci mag lay ñëw juddu doon doom juy dox ak tànkam mu ne ko yow nag nekkoon nga fi ñu di la toxal ngay ñëw ci àddina bi waaye fa nga wàcc nit amu fa kon yow sax du woon nit parce que su fekkoon ne yónnantu bi dafa taxaw taxawaayu nit foofa kon daf koy wax ne ko nit amu fa ku dul yow waaye li tax mu ne ko nit amu fa foofa xaqiqatu muhammadiyya rek boo fa taxaw foofa ñett fa am ndem ñett am na zaatu moo fa am moom mi def production muy te jëlli mu def te jëlli bilaa nisba te bila bilaa nisba boobu mu mooñaat ko supp ko muy xaqiqatu muhammadiya ñu di ko wax ruuxul muhammad ak xaqiqatu muhammad ak nuur ak nuuru ilaahi nuur nuuru zaat ak tur yi li muy bëri bëri bàyyi mu ne lenn li rek la jëmmi muhammad ci démb ji rek la comme alaaji daf maa wax nag ne naa firi te wax naa fi te bila bilaa nisba wax fi tëjëli loolu kenn xanaa war naa leer xam nga luy tëjëli bi laa nisba mooy nga amal dara te amut Cheikh Baye tey ku la joxoon big jox la kayit ne la décideel ma lëg sooy sëgg tiim kayit gi rek am nga lëg waaye amagoo ko ci kayit ci sa bopp bi nga ko am kon lëg am na waaye ana lëg loolu mooy te jëlli bi laa nisba yàlla bi mu njëkkee yëkkati jëmmam ji yëngal ko loolu la cëpp muy lii laa nara defal ba mu ko gësamee taaj ko mooy xaqiqatu muhammadiya loolu la wax te jëlli waaw kon luy te jëli alaaji saalum te jëlli mooy màngo ga ca sa ëtt ba su demee ba rak nga jox ko lawbe bi dàq ak gor mu ferejal la ko ba mokk doo gis benn xooxi màngo ci biir dana gis xooxi màngo pourtant su fa nekkoon bu ñu jotee rek doom yi génn fu mu denc doom yi noonu la yàlla def jëmmam ji xaqatu muhammad génn kon ndekete tëjëli bi laa nisba mooy li ñuy wax barzak kon mooy facile bi dox diggante zaatu ak xaqiqatu muhammadiya oh non boo amul bu bàyyi parewut ci yow doo ko mën a wax doo am nopp yoo ko déggee moo tax on le remercie infiniment dañuy sax rek di ko gërëm dañuy sax rek di ko gërëm soo xamul barzak boobu mooy lan diggante gëmm ak gimmi du gëmm du gimmi lan la du gëmm du gimmi te ñàkkuta doo gëmm ñàkkuta doon gimmi bi nga gëmmee ba mu yàgg nga xool ku nekk xam na ne xool fatra la ku nekk xam na ne gëmm fatra la kon ñoom ñaar am na fu ñu teqali ko waa fu ñu teqali gëmm la walla xool la diggante dund ak dee kii mi ngi dund ba mu yàgg ñu ne dee na kon xamoon nañ ne dund dëgg la woon ci moom dem nañ ba mu yàgg ñu xam ne dee xam te ñoom ñaar am na fu ñu teqalikoo waa fuñ teqalikoo moom dund la am dee du dund du dee te ñàkkut doon dund ñàkkuta doon dee pourtant am nañ frontière frontière bi nu mu yem xam nga sa tool bi moom fi nga digaloog waa ji keebaa mi nga digaloog tool mu def gerte nga def dugub xam nga fi ngeen yemoo kon seen tool bi am na digaloo moo tax ci riiram ñax moomu ñu fay bàyyi mooy wane ne lii mooy digaloo bi waaye dafa sew ci pays yàlla bi ba nga xam ne doo xàmmee ñoom ñaar fan lañ toll. dara ji lii jaune ak lii weex ñëpp xam nañ ne lii jaune la lii weex la ñoom ñaar ñi ngi taxaloo kon am na fu ñu yemoo fi ñu yemoo ndax dafa weex weexut ndax dafa jaune jaune ñàkkut a weex ñàkkut a jaune alaaji dang ne ma maa ngi leeral maa ngi lëndëmal mais ki bàyyi parewut ci moom rek laay lëndëmal ku nekk xam na ne am na temps ab am nga ñu dem ba mu yàgg nga nekk aarif xam nga ne am na frontière ci diggante bi mooy fanaaw ki nekk ci fanaaw nekkatut saalik parce que majzub waaye nekkagul aarif parce que majzub duut ci benn mën naa nekk nag fatara bu gàtt mu jàll kon yow li nga dundoon te bàyyi fexe ba nga di ko dund suñ koy waxtaan mu mel ni dañuy lëndëmal non ku bàyyi pareegut ci moom bokku ci ah mais na ma jéggal yàlla na ko yàlla may mu mën koo dégg. waaw jar de xam nga kooku moom bàyyi pare na ci moom ndaw suusu xaqataay bàyyi pare na ci moom parce que dégg na li may wax mais danañ kaala nit topp ko mu lal di gàmmoo fekk na li may wax nii yëpp doon lépp ci moom. waa nooy gindee lillahi wala rasul yi nan ngay gindee non moo tax li mu Mouhamed Ndaw wax wér na nga def ba gaaraas oto bu tegul moteur nga ne jogg toog joxe sa paas ndaw yàgg ndaw yàgg danga fa toog xott wu amul moteur nga ñëw ne jogg jëlal place ci kanam ak bu digg ak bu gannaaw fenn nga demut parce que da ngaa dugg ci lu mënta dem moo tax soo ne nit dama laa topp ngir yàlla moom muy taalibe yow ngay sëriñ mu ne la gis yàlla mënta am ba ko fa kooku du la yóbbu nu mu la yóbbu fu mu gisul xanaa tëñax tëñax te bu lay yóbbu ci tëñax tëñax dana tëñax tëñaxi ba yegg te du yëg na yegg na parce que yegg goo yeggut la مطير نوشا ترجماتك الملوك هيدا سيدي وبقيت أحمد تسلم أمة الغيرة كرسة يدك نقلا تسلية Jangan tanggap kerja yang dilengkapi wisi, lebih lengkap. ويصفر صلاته عن قدر ودونه كاللياهية كالليهم جحك سيدي ما كاللياهية كالليهم جحك سيدي برهاما billahi ku yore oto bu amul moteur nit ñi la réer waaye yow xam nga ne sa oto amul moteur oto bu amul moteur ku ko yore nit ñi ngay nax de tëj sa capote bi boo ko ubbi woon kenn du yéeg waaw mais nit ki tam bu ko ci kersa taaj moo tax ndeysaan genn góor ci dakaar mu toog rek doom yi commencé doon taalibi Baay doom yu jigéen ñi ba mu yàgg ñu góor ñu dugg ba mu yàgg grand place ba dugg ba mu yàgg gars yi commencé di yokku ba mu yàgg soxna yi yoot di tarbiyu ñaari soxnaam tarbiyu ñetteel ba tarbiyu ñu dem ba mu yàgg mu ne man kañ li ma gis nii wér na waaye nag man dama fekkoon man nag dama fekkoon sama waajur seen tabax yi nu mën a mel kër yi ay oto milliard baayo koy mujjee xale yi dëbb nañ ca barahaama xam nga li ngay ragal boo xamoon ne teraanga la nga teel a dugg nit dafay toog am quelque taalibe nga ne suñ xamee ne waa kër Sidi Ibra li ñuy def dëgg la sama taalibe yi dañuy dem kon man dama fi des man dong dootuma am taalibe déedéet yow demal soo demee yow ñu sédd la nga ñëw sa taalibe yi nga sédd leen ñeneen ñëw nga sédd leen cër ba nga amoon bàyyi dafa lay jox bu ko gën te dafay fekk nga def ko ci dëkk mais soo continuer nag di leen kar du tere danañ dem de danañ dem de dogal bi moo ñëw danañ dem gis nga li dugal naar gànnaar yi naar gànnaar bu weex tàll shérif am xam-xam am wërsëg billaahi su dégloo ku ñuul rek war na ko lu gisu gàdd ga wul nax wi jógee Mauritanie ñëw Sénégal dem Koosi yore sox-soxi war li yore konko jere di konko di konko bañ daanu ñu jàppoo teg ci root garab gi continuer di konko ngay pare di taxan mat di ñëw di indi di wupp bàyyi di bés bàyyi su xaaxta di ko bu taf lay nga jël war na shérif bu weex am wërsëg am xam-xam defal ko nit ku ñuul fii ci Saalum maa ngi waat ci yàlla won na la lu amut gàdd ga ji Saalum billaahi boo amutoon sens nuuru diine langaamu bañ tibbal ko mu tibbal la ni ko maa ngi giñ ci yàlla doo dokki nga dog billaahi konoon doo dokki nga dog sëñ daam mii su toogoon tun féetéerlu na mokkal alxuraan ba mu jeex na dégg hadis yi na de non baal leen ma sax aarif billaay ku ko duut déggoo alxuraan ذكرا إذا أنتم صيحة سيدك أنتم أرغنا ترمي حاجة بيتك حمد جيدا أنتم غارتا تسامين حج ما تسكر لا تسيد non mooy ordinateur bu aay bi wala sax moom rek kay ordinateur xam nga tey alaaji Saloum benn taalibe dem ba fële mu yónnee la portable nga dem jënd puce bu bees ñëw dugal ci chargé ba mu fees nga taal mu ne la dugal ci puce loolu lañ lay bindal de insérer sim carte loolu lañ lay wax mooy ne moom dugalal nañ ko puce ba pare mu ne la puce amu ci parce que reconnaître wut ko nga jël câble bi dugal ko ci ordinateur bi mu décoder ko jox la kii bi nga dugal numéro bi mu delloosi ko téléphone bi sonné nga uyu di tontuwante di wax c'est parce que da jaar ci ordinateur bi moo tax aaya yi ci alquran maa ngi génn ci yàlla bu bàyyi parewut ci yow nga ne da ko firi ndaw coon jëlal rek wa kullu man aleyha wa yabqa yàlla nee na li fi nekk yépp dafay raaf man yàlla rek ma des kañ la laaj ko ku tar wut kañ la lépp di raaf yàlla rek des fi kañ la su ñëpp dee su ñëpp dee ñu ngi fi suuf ci biir bàmmeel yi di wala buñ dekkee buñ dekkee ñu ngi fi di ndax buñ leen séddalee ñi nekk na ñi nekk safara déedéet booba ñii ngi aljanna ñii safara ñi ngi fi ndax aljanna ak safara dañuy raaf déedéet yàlla def na xaalidina fiha dañ fay béel c'est pour l'éternité donc kañ la fi yàlla di des alaaji bi nga fanaawoo ana nuuru diine ana alaaji saalum ana garab ana oto ana kër ana alquran ana kaaba lu am lépp raafu duñ ko wax nit ki mu di ko dégg dañ ko koy dundal soo amee fanaaw dootoo gis lu dul yàlla rëbb raaf na yàlla des moo tax yàlla dafa am foo xam ne suñ fa demee taalibe bàyyi rek lay waxat non c'est très grave mais tooñu ma kenn taalibe bàyyi rek lay waxat wa kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram non aay jooju taalib bàyyi rek la ci yàlla di waxat waxut ak keneen mu tax sudaane bi sëñ Cheikh jox ma ko ndeysaan mu ñëw ma sóob ñeenti sudaane waa Darfour ma nga yore ay zaawiya lu ba téeméeri zaawiya ca Darfour mu ñëw yëg ne moom tarbiya matut kee yëg loolu kee yëg loolu ñu ñëw dem ca xabru ba ñaan yàlla bàyyi téyel leen boppam ñu xam yàlla ñu dem ci sëñ Cheikh mu sóob leen ñu am ñaari fan buuri Maroc bi invité sëñ Cheikh mu war a dem Maroc ma am teraanga ju yem ni xalifa Cheikh Ibrahim yebalal mag ñuy tarbiyu ndaw chance bu rëy ndaw wërsëg bu rëy xalifa Cheikh Ibrahim moo la yónnee ay taalibe baay yu jógee Darfour pour war a tarbiyu ñu ñëw ma laaj ñu tontu ba sóob ma di leen firil nag séparé leen firil kii mun xalaku foofu yuuxu ba tëdd ci suuf ma yéegal keneen mu yuuxu ma tëral indi keneen boo yéegee nag ba gis sa morom di yuuxu ngay xulli sa bët yi ne kujj xam naa da ngay wax kii luñ ko jam ba tax mu yuuxu buñ demee ba mu yàgg rek nga fekk ko ci yuuxu yi biñ demee ba wàcc nag tegal leen sikkar ñu bërëmu yuuxu ba tël ba leen wàccee waa ji toog nag sant yàlla ndeysaan fopp ronga yi toog ba mu yàgg mu ma maa mën a nangam ma ne ko ah mu ne ma man maa ngi doon firi alquran dëgg li may wax dara du ci dëgg maa mën a nangam waaye xaaral ba ma demaat rek ma ne ko boo demaatee di firi lu bon la nga daan wax rek ñi ci bokkut bokkuñ ci moom piri moom xam ne ci biir néeg rek lañ koy wax non ñun ñoo rëy wër sëkk ñun ñu ànd ak Cheikh Ibrahim nous sommes très moo tax wax yi bari nañu ah, mais gis nga li nit ñëpp di wër kulun fi jaw fi fara kee di rëbbi lëg kee di rëbbi cokeer kee di rëbbi naat jàppal fara rek soo xottee biir bi fekk la war na na lépp la ngay rëbbi yépp di ko uti nga ñëw fekk ko mu dajee ci jaw ful fara util bàyyi rek soo amee bàyyi rek am nga lépp état Afrique yëpp xam nga luy seen problème unité africaine nañ def Afrique muy benn nañ jéggi bàyyi rek nañ dem ndax dana réglé nañ dem nañ dem kii di làkk français kii di làkk anglais ñu danañ bu do benn kuy sànni làkkam loolu kenn rek ko man yorobaay yi ñëw katekul yi ñëw jarma yi ñëw ngay gàmmo ci olof ñëpp fanaan ci gàmmo gi olof yi ëppale wuñ yeneen làkk yi ñu dem ñibbi parce que làkk bi ngay wax international ngay pikiir nit ñi nit ñi di dégg gàmmo gi di jariñu bu déwénee ñooy njëkk ñëw ñi toogoon bàyyi lu muy gaaw moo du ci olof oh gis nga nag mbaal yeneen yi sax nag ñoom jën yu ndaw rek lañ mën a am ay poy kaag yaa booy yooyu rek mais jàpp jën wu la ëpp non ci bàyyi rek la am yow da ngay doon ko ne ku ndaw amoo 30 ans ñu jox la mag mu la mat bàyyi am doom yu la mag ëpp la yore ci xaalis loo yorewul yore ci daraja loo yorewul nga loo ko dënnam bi waddaloo rongañam yi bàyyi wan na la ne moom jën wu ndaw la keneen a ko yore woon muy jën wu ndaw non mais bu paree nag doon jën wu mag koom yow te denc na loo dencu daf lay duble nag daf lay duble daf lay duble loolu géej gi la du mbaal gi loolu géej gi la loolu géej gi la du mbaal gi mbaal gi mooy jëli ca géej ga fa nit ña nekk mooy géej ga xeeti jën ya fa nekk yépp benn mbaal rek a mën a tibb indi moo tax bu bu moo tax bu buuri buuri kawoon bi dafa jóge xam bi mbegaan jëm kawoon di dox ak tànkam dox ba ci digg tan bi mu taxaw jàllar ko ci ndeyjooram ne bato bi fii ngunu ngunu ji ma fiy dégg bés bu li fi riir jóge liñ nekk ni fay fee ma gis xeeti nit ñu nekkan ci biir xeeti nit ñu nekkan ci biir bato bi toog fu amul ndox nga gaare fa bato mu dem yegg def décret mu ne Dakar googu toog fa maa ngi leen di ñaan bu fa kenn pon bu fa kenn génn tànk bu fa kenn saw bu fa kenn jotee jigéen bu fa kenn jëw bu fa kenn wax wax ju bon Dakar googa buur kawoon doon wax moom lañ taane fa la jumaa ji nekk la mu waxoon am na de mu ne ngunu ngunu ji temps bu tasee seen yooya fay fay na tërus ku bugg te bokk sax doo am koo mbokkoot moo tax sëriñ mun sant sama soxna Ndey Xadi Faal benn waxtaan foofu mu di fa def waxtaan ku nekk ak la la ñor séeréer yi ku jël micro rek ne sëriñ Mamoun ñun daal jàng nañ kaamil jariñut baaw naa nañ jariñut def nañ ay xërëm tuur lu nekk def nañ ko jariñut ñun daal ndox rek lañ bëgg ndox rek lañ bëgg sëriñ Mamoun jóg ne nuus mikro bi ne nii teen ci kaw ba yàgg mu wàccee bët yi ba yàgg mu toogaat ne ku am lu taw di yàq demal defar ko ñëwaat mu fanaan taw ba bërset waaw Cheikh bàyyi loolu engagement la gis nga ñi toog fii yëpp sama am rek lañ yaakaar te ku yaakaar yoon yonent yàlla Muhammad tem wér boo gisee Xasan ak Hussein yaakaar leen. billahi géñ naa ci yàlla boo tàllalee sa loxo wax Cheikh Ibrahima ne ko fajal soxla yi. maa ngi géñ ci yàlla benn du ñibbi te du faju yu bari lañ am nag yu bari soxla yu bari maa ko fi ëppale nag. bu ma wàccee bala maa yegg sama oto bi ñu bëri tàllal ma seen loxo ku nekk gëm ne bu ma ci taflee maa ëppale ñëpp man mi yaakaar ci soxla yi fi yow rek a fi yor responsabilité toj bomb bi affaire bi sotti moo tax bi ma gisee benn bindkat mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy kan ak lan la def ba tax ñëpp topp ko rek di direeku lu wax nit ñi nangu nit ñi sujuutal ko ay nit ñu ñàkk amuñ dara bu yonent bi jógee ñu ne tey ñu dee nangoo joxe seen bakkan yi nangoo joxe seen wërsëg yi nangoo joxe seen lu nekk nga xam ne Omar ibnul Xataab yàlla daf ko may asi wërsëg mu toog yonent bi daal di ne indi leen dara nit ñi dem di dajale xaalis Omar ne Aboubacar daf may won bër bu set ne moo ma gën a bëgg yonent bi billahi tey ma won ko ne ko maa ko gën a bëgg yonent bi daal di dem këram rek lu am rek mu xaaj ko ci digg bi daal di indi jóor yonent bi ne ko ah Omar lii bëri na di mu ne ko la ma amoon yëpp dama koo xaaj ci digg bi indi mu ne ko yàlla na yàlla barkeel la fa des te fay la li nga joxe mu toog Aboubacar ut ñu ko jàppale moyenu la ma amoon yëpp indi mu ne ko ah yow mbaa fa dara mu ne ko banaa fa yàlla ak ab yonentam rek Omar jug takafu ko daal ne ko tey laay gëj a xëccoog yow gën a bëgg yonent bi ak dàqa dundule tey laa koy gëj. te pourtant duutoon ñu di ko cité ci borom alal yi mais defar yónnantu bi moo garaaw xoolal yónnantu bi ànd na ak Aboubacar Siddiq ñu nekk ci rañaan mi ñu nekk ci gàddaay gi Aboubacar di daw di ko ñëwee kanam di ko demee ndeyjoor di ko demee càmmooy di ko demee gannaaw mu ne ko Aboubacar lii lan la mu ne ko gars yi mën nañ laa ñëwee fu nekk waaye damaa bëgg kuy ñëw ci yow rek njëkk daf ci man bëgg naa féetoo yónnantu bi fu nekk moom yónnantu bee ko ëmb mu bëgg a ëmb ñu agsi ci xunt mi mu lu ne yonent bi taxawal bëggut sax yonent bi wàcc fekk fa lu koy lor mu ñëw di xotti di dugal di nas di fakk pax yi di fatt di fatt ba mu des benn pax mu dëbb ca tànk ba dal daal ne yonent bi mën ngaa nelaw ndekete pax mi mu bàyyi jaan jaan ci jaan ji ne ko coppet dangar ji yee mu wàcc fa tànk bi mi ngi kar kar yi dangar ji dugg la ko ba ñaq waa ngi siit toq yonent bi yonent bi ne xefeet ne ko lan la mu ne ko dafa am lu ma màtt fii mu ne ko teggil junney at la fi def gannaaw bu mu xamee ne danaa ñëw fii mu bëgg ngir gis ma ziyaare ma nga bëgg ko koo xañ mu màtt la mu teggi non mais gis nga bàyyi bàyyi lépp la doon ci yonent bi dafa ànd ak alaaji ñaada xam nga Lamine jukka ci Mérina baayam mooy alaaji ñaada ci juróom benn nit ñi daan ànd ak bàyyi ñu doon juróom ñaar ci la bokk ñu rey gàtt toggal leen ko tooke yàpp wi parce que dañoo bëgg bàyyi lekk ko dee ndax nit ñi noppalu ci faydu bi ñu ñëw toog mu ne bokk bëtam yi rek ci yàpp wi alaa ñaa dañ ne yoor loxo bi teg ci yàpp wi bàyyi fël loxo bi ne ko dem nga dayoo mu aj loxo bi bàyyi di xool yàpp yi di xool yàpp yi ba mu yàgg mu ne ko bisimilah nañ lekk dañ koo tookee woon waaye lépp dem na xam nga abu Aboubacar Siddiq ba bi muy génn àddina jaan ji tooke jim ko bàyyiloon ci tànkam bi dafa dem ba xaw a rey genn wetam gi alaaji ñaata ba bi muy génn àddina côté bi mu loxo ndeyjooram bi côté boobu Aboubacar Siddiq côté ndeyjooram ba moo dee woon alaaji ñaata mi taxaw taxawaay taxawaayu Aboubacar Siddiq bàyyi taxaw taxawaayu yónnantu bi tooke ji daf koo topp boobu bi muy génn àddina daf koo xaw a jox nisfu chelal lépp lay doon lépp mais posonal bàyyi tuuti moom mu lekk ko xalaku waaye ki nga xam ne mooy passage imposé dogal yàlla yi ci moom lay jaar yéeg ci moom lay jaar wàcc lan nga ko mën a préparer moo tax naar gànnaar yi bi ñuy seet ndax bàyyi mi xutbaan wetu gi ñuy wax ci moom wér naa wéru mu dend ak benn mbo benn benn doomi bàyyam naar gànnaar yi ñëw indi fetal gi ba mu dend ak noppi baay bi ñu téq bal bi tël magam ji naaw bu ci kaw bu ci peelu xasalte nii xasalte nii mu ne ko nuus ne ko suñ la rayoon doo ko nettali man la ñuy nattu ndax li ñuy oote ci man wér naam de dalal moo tax moom baay daf daan wax ne nit ñi dañoo wax ne Serigne Mahmoud moo ëpp fit ci njaboot ak El Hadj Abdoulaye waaye seenu parce que man yàlla mayul ma fu ma mën a wanee sama njàmbaar gi moo tax ñu fi toogee ci ay waxi falaa falaa ñu xëy rek daal di ne bàyyi du génn këram gi indi militaires yi kër baay gi ci lew na ñu indi soldats yeeg gendarme yi ñu ñëw entouré kër gi ne bàyyi du dugg du génn kenn du dugg du génn Yavaat Diop génn di jëndi mburu policiers yi ne ko doo génn mu duggaat ci biir daal sëriñ bi taajal sa jukki alxuraan bi soldat seeg alkaati yi ñu ngi fees buntu kër gi ñu ne kenn du dugg kenn du génn bàyyi muuñ rek continuer ak jukkeem bi sëñ Cheikh a ngi taalee otoom bi dem di nuy ji bàyyi alhamdulilah kon seedee ngoo mu dawal ba ci pegg bi policiers yi taxawloo ko mu taxaw ñu ne ko fii kenn du fi dugg tey kenn du génn Senghor moo joxe ordre wala joojo Njaay ne kenn bu mu dugg kenn bu mu génn sëñ Cheikh door marche arrière bi arrière 10 mètres dugalaat avance accéléré ci seen kaw ñu taw mu dóor ko ci bunt bi oto bi dugg mu ci lu ñëw nuy bàyyi bàyyi ne ko xanaa buñ mënut ci yow dara de xanaa waruñoo xalaat ci man alhamdulillah mais ku téye lépp ci teen xam nga ne maa koy maa koy limité loo koy limité nañ yem ci bàyyi tuuti ba bàyyi mu mag mi moo la ëmb yow ci sa bopp yaa ngi def tasaruf ci biir jëmmam ji ah loolu ñu xama ko xamaa ngeen baal ma ne moo ëmb ñëpp non loolu loolu ñëpp xamuñ ko ñëpp amuñ chance ñëpp amuñ chance ñëpp amuñ chance waaw ñëpp amuñ chance waaw alhamdulilah lépp yonantu bi la dund lépp la doon lépp tabe gi njàmbaar gi taar bi dëggu gi njariñ gi Euh, man day euh, sëriñ bi euh, gàmm gi dafay ñëw taaw ma nangam ak nangam mu sëq jox la nga tiit waaw xam nga sax après damaa bëgg mu ne déet déet déet man xam naa ne defi woo dara sa dërëm demut ci gàmmu gi waaye man ku ma nax ci yónnantu bi ma naxu que foofu la toll ci yónnantu bi toll ci yónnantu bi man damaa judd deux ans Baye Mahmoud génn àddina man ma nekk xale bu am deux ans sama mag am 4 ñaari at la ma magee ba 1975 suñ xari tabaski suñ koo sutee Cheikh Ibrahima daf may jox xar jox papa sama mag xar billahi mooy gor parce que moo ëmb bàyyi bàyyi ëmb doom yi kon moo boole bàyyi ak doom yi ëmb leen mais suñu joxut xar fu ñu koy amee mais ku am 2 ans 3 ans 4 ans nga topp ko di ko jox xar te xamugul luy xar ngir kóllëre rek. ma am tànk buy métti ñu bindal ma lettre ñu bindal ma téere ndekete téere bi bu amee semaine sama tànk bi dafay dagg nit nit ma ko bindal de ndekete tànk bi bu ci am téere bi bu ci amee une semaine dafay dagg sama gémmiñ gi commencé fuur may nelaw sama yaay dagg téere sama dagg téere bi ma nelaw sama yaay teppi téere bi jox ko nit mu jàngal ko ko ne ko mbaali kuñ ko bindal mu ne bàyyi tuuti mu ne mbaa takkut ko mbaa matul bés waaye mu ne déedéet ñetti fan de la ko takkagul waaye mi ngi doon nag lan la mu ne lii de bu ko takkoon bis bu waaye tànk bi dana dagg sama yaay dem jox bàyyi téere bi mu jàng ko ne bëri jug toog ne man lan laay wax yowmal xiyaama sëriñ Mahmoud lan laa koy wax li ma dénk ma ma ma war koo ñeg ba du yàqu man ma war koo ñeg ba du yàqu non demal ci demal ci rexla bi sa doom doomi mag ju génn rek su doon keneen nga ne ba ko bu yàqu mu noppal ma njëllee waaye nga sol sa dàll di ko wëri xasida bi li muy rëy rëy alaaji Ousseynou rek la doon wëri Ousseynou Niass yow da ngay dem ba yàgg yow nga foog ne yow yaa foor mais fekk bàyyi mooy yónnant bi jikko yu mat yëpp dajee ci moom moo tax booy gàmm ma jarul dem ci yónnant bi ah parce que loo wax ci bàyyi mu jofi ci yónnant bi yemal ci bi nga xam nit ñi xam ko boo waxee nit ñi xam ne nii la meloon texte yi bari naa lii yëpp ci yónnant bi laa ko bind mais loo ci wax mu mel ni ci bàyyi ngay wax ah séeréer bi ba mu ñëwee toog fekk bàyyi ngi waare di wax ci yonent bi mu di ko déglu muy mu yàgg mu ne mbokkam mi nañ dem wax ci sa bopp dafa neex kii ci boppam rek lay wax sax dafa foog ne nit kuy nit kuy xissa ci boppam la rek xoolal bàyyi bu lay wasfal yonent bi naan la bët yee dafa rëy la ca ñuul dafa ñuul kuk la ca weex dafa weex tàll bëñ yi dañoo dijjoon saaraan kanam gi dafa rondelu dafa yaatu bakkan bi dafa fës ñaari mbaggam yi éenam yi ba su lay wax nga di ko déglu di xool photo baay bi da nga naan est du baay boppam lay wax

suura xayya la li Cheikh Ibrahim suura xayya li rasulillahi sëñ daam jumaayi Medina ji dañ koy fondement magama nettali mu ne alaaj Abdoulaye dafa tibb gaali suuf yi xale yu ndaw tibb gaali suuf bi ñëw indil bàyyi mu këpp sëñ daam dem tibb ñëw indil bàyyi mbay mu këpp sëñ Cheikh dem tibb ñëw indil sëñ Omar mu këpp asmax mu dem tibb jërëjëf kon ci kàddu yi Mouhamed Ndaw yooyu lañ la ni tàggoo mbokk yi jërë jëf kon lii la woon mu fii ci sanc Gueul Ngoné mu di jaare bi ñu jagle woon maam du nuur diini ndaw fii ci sañc Gueul Ngoné déglu ngeen cérémonie officielle bi ñi amaloon ko ki ko amaloon di adjoint préfet ci teewaayu Cheikh Abdoulaye Wilane maire bu Kaffrine ak euh, président communauté bu euh, waaw ah, macha allah ah, waaw xam nga nag euh, moom mënta ñi gërëm bu baax a baax sant jaa jëf mbokk yi kon lii la woon ci sanci Gueule Ngoné Mouhamed Bassirou Niang la woon euh, Omar Ndiaye Mouhamed Cissé moo nekkoon ci technique bi léegi nag Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé moom ngeen ànd ci diwaan buñ ci noppee ngeen déglu Alaaji Abdoulaye Niass ci tafsirul Quran 8h30 ci darsu bi soxna Khady Thioub Thiam 9h ci Ngoyane mbokk yi jërë jëf ñi yendoo jàmm moom la maam Lamine wax nu ngeen daan def bu baay ji wax mu ne di dee di dekki rek mais nag dee dekki dee dekki ku baay parewut ci moom mënu ko de ku baay parewut ci yow boo dee rek jàll sang suuli rek sang suuli rek waaw sang suuli rek waaye waa ji da nga koy dimbale yow yaa fi nekk moom nekku fi ah summi na suwedement bi sànni ko ko pour mu fomp rongoñ yi parce que sa kilifa la dëgg la waaye yow ki ngay wax amatut contrôle soo mënee fompal ko soo mënul ba ko hmm, dana fa romb de xam ngeen ñiy déglu ñëpp xam nañ ne waxuma dara. mais seen dégg yi moo foor da ngeen maa romb di jëli préparation Cheikh Ibrahima Ngom. xam nga waa ji bi muy wax ci yónnant bi daf ne yónnant bi ma aqallu mamtalakahu min al wasaayil al maddiya wa ma a'zamu ma jaa bihi min albutulaati nnaadira walaw annana darasna altaarixa min hadihi nnaxiya falan najida fihi isman muniran ka ismu annabi alarabi alladi qaddama lilbashariya alkasir alkasir histoire yëpp gisoo ci ku mel ni Muhammad mooy yu néew ay gone topp la miskin tooli tàndarma bu mat ñeen fukki tàndarma sax amut ko ànd ak yow am ko am ñu am des centaines de milliers de 4x4 kenn xamu leen budget yi alal ju jeex <laughs> uh-huh. Hmm? mais mais loolu waa ji di taggee yónnant bi bagage yooyu yónnant bi daf ko jox bàyyi daf ko koo jox xam nga yónnant bi daf doon wax naan duma dara lu dul kon xam ne ñaari jigéen a ko jur may lekk mburu mu wow ah jëlal Cheikh Ibrahima yaayam maam Alaaji ma ngay toxu ma ngay dem ak ñëw ma nga Gàmbi ma nga Bambuk ma nga Kaolack ma nga fu nekk muy tuñ tuñ yi di dem ak ñëw mais xam nga ne kooku dajalewul ci wërsëgu àddina xam nga ne soo yaakaaree ndonoom rek doo bari le nga jël àddina bi yëpp téye ko sa loxo ba ñëpp xam ne yaa ko téye te du téye masla du muusantu xam nga ñu bari dañoo foogoon ne Baye dafa gën a muus nit ñi rek di ndax nit ñi di nax nit ñi ñu bëri ci senegal looloo leen tardeel dañoo foogoon ne Baye dafa muus di nax nit ñi rek fa huwa aala min zalika fa huwa akbaru min zalika fa huwa aamu min ha zalika fa huwa awsau min zalika nit ñi dañoo foog ne bàyyi ci muusantu la nekk ngeen a foog ne doomi maamalaaji yi bàyyi ci gën a muus gënu cee muus waaye yàlla ko tànnal muus ci boppam la ko yàlla tànnal teg ko ca xam nga ci barke yonantu beeg Cheikhu Tidiane la ko amee de mais yàlla def koo may loo xam ne feeñu ci yonantu bi feeñu ci Cheikhu Tidiane. demal nga jàng saari man ngay dem di dem di dem ba ci biir danga dégg mu naan axrajuni min makaani duuna zambin xayra anni xubbu taaha fi jinaani génne nañ ma sama kër baay waaye defuma benn bàkkaar de. xanaa lenn bëgg yoon yónnantu bi ma ne non bëgg yónnantu bi bul ko firee bëgg yónnantu bi waaye bëgg yónnantu bi mooy doo yónnantu bi nit ñi mën mënatuñoo déggu nag ab saalum saalum bu dëkk fii toog toogaay yónnantu bi loolu neexut a dégg donc ku amul chance yi doo ko nangu ah ku amul chance hmm? julli jot na acca bismillah waaw waaye gis nga bu buñ defut allah akbar asalaamaaleykum ñu ne taalibe bàyyi xéefar lañ nañ julli rek yéegaat gis nga suñ paree bañ sikkaraat buñ paree rek ñu tegaat ko ci fiñ ko buddee lañ koy sampaat rek ma uliqa wal xaatimi lima sabaqana siraq bil aqwaladi ila siratika almustaqim wala